li ñu dajale tey nag dama ci gërëm bu baax le ministre Ismaïla Madior gërëm ko ndax biir assemblée laa demandé woon pour que ñu tabaxul ñu maison de justice mun nañu bu ngeen amee place c'était difficile nag d'avoir cette place mais dinaa gërëmaale it madame Ba ndax xam na fi ñu jaar ba war a mën a am espace bi ndax yombul woon gàllankoor bu ne dajoon nañ ko ci mais mu am fitam am fulam ba lii mën a taxaw fii kon madame Ba jërëjëf di gërëm monsieur le sous-préfet sa prédécesseur muy Marcel mbay jaw parce que pose première pierre bi boobu moom moo fi nekk mais di ñaan rek population bi doomu population bi ñoo fi nekk lii bijou la boo xam ne commune bu ne bëggoon na ko am bu ñu xoolee ginnaaw Tëngéej departement de Rufisque commune u Bambilor moo ko fi am kon nañ ko def suñu moomeel taxawu ko te lépp luñ fii def na ko sutura lal ndax sutura moo tax ñu indi ko fii kon di ñaan mag ñi ndaw ñi lépp lu war a demati gendarmerie war nañ ko mën waxtaane fii bu ñu ko waxtaanee fii yàlla mën nañu suturaal ba nu am ci solution bu ñu demee nag ba mu ma ba mu ëppi loxo nag bu boobaa ñu teg yóbbu yoon am na yoo xam ne nag mënuñu ko liggéey fii mais bi ci mën a jëkk rek mu wara tax kenn ku ci ne tay on tend vers biñu ñuy xool out euh, ay casier judiciaire foo koy ute ji da ngay dem ba Dakar wala nga ñëw Tëngéej déposer tok ay fan légui fi nga koy outé ak yeneen ak yeneen. Euh, tay ji dañu ñëwoon Bambilor euh, au nom du garde des Sceaux ministre de la justice euh pour ñëw inaugurer maison de justice bu Bambilor comme ni ngeen ko xamé depuis deux semaines. Euh, ministère de la justice a ngi inauguré maisons de justice il euh, y a deux semaines des nañ Saint-Louis des nañ Ourossogui demoon nañ Richard Toll euh, tey ñu ngi Bambilor bu il y Massar la une région yi est dans dans le sud nous allons suivre voilà maisons de justice pourquoi nous mettons en place état du Sénégal doit rendre compte que euh, justice pour que nous nous dem comme ni directeur bi waxé c'est un peu difficile La population est souvent duñu bëgg devant le tribunal et puis dañu rendre compte que même pour déposer plainte il faut nga bind mais buñu ñu ci dëkk bo xamné ne wala ñu localité yo xamné ñi dégg français wala ñi ñi jang école bariwul donc on a pensé que pour que nous ñi les droits, dem pour que ñu reconnaître il faut que ñu defal leen benn euh, fa dem bo ñëwee du soxla ngay bind plainte da ngay ñëw rek di nga fa fekk médiateur bi wala conciliateur bi mom bo ñëwee bu la dégloo dina la mëna o kinga ki nga jotel mu mëna euh, gérer problème bi té du yegg tribunal. lool nak buñ ko gissé loolu vraiment dafa nekk lo xamné da fay tax population bi vraiment mëna régler sen problème té duñ dem tribunal avantage maison de justice aussi mo nekk ne du la coûter dara plainte bo démé tribunal dinañ la wax ne bon voilà fayal li wala fayal la le bien que sax lu normal la mais maison de justice bo ñëwé dinañ leen conseiller dinañ leen euh, fexé bu féké né da ngeen am jote ñu fexé ba jubaloo leen té du ngeen ci fay dara état bi moko mettre en place pour que vraiment population yi mëna a régler sen problème yu ndaw yi sans que ñu mëna a euh, ñuy nekk di dem tribunal di yégg di wàcc lolu souvent da fay tax nit ñi sax duñu mëna topati duñu bëgg topati seen ak ak yelleef parce que day muju métti ci ñom maison de justice dal dañ ko mettre en place teg ko fi pour que dal population yi vraiment ñu def ko seen kër problème buñu am buñ ñëwé même pour out euh, comme niñ ko waxé légui casier judiciaire jaratul ngay dem ba tribunal bo ñëwé fi bo déposer say kayit ñom ñoo ñu jël kayit yi yóbbu yóbbu ko tribunal su fekkee da nga am aussi plainte sax booy di déposer tribunal loo xam ne dafa dépassé fii boo ñëwee fii ñoom dañ la bindal plainte bi wan la fi nga war a jaar pour nga kii ko boo jënd kër jaxatul ngay dem rek di euh, sa xaalis boo fi dinañ la wax fan lañ lay teg ci yoon ba nga xam li ngay jënd mu lu du am suba vraiment maison de justice daal euh, loolu moo ko tax a jóg euh, tey tey la bu suba Kër la processus bi dafay continuer pour que vraiment localité boo xam ne ni wax dëgg population bi amuñu seen seen ñu tegal leen ko fii pour que ñu mun leen jàppale ci seen yoon seen àq ak seen yelleef